ayca am nañu contentement bu baax a baax a baax a topp gi ngi topp suñu plateforme bu yanj bi waaye tamit rawatina émission bi nga xamante nag moom lañ dëppee sama talent comme d'habitude ah, di dëxuñu waaye nag ah, ah, namoon nañ lool émission bi nag saa su comme ni ma koy daal di waxee rek ku nekk xam ne ne saa su nekk nag sama feggoog ndeyjoor day doon ki nga xamante ne nag moom mooy sama chroniqueur bi DJ Zal Zal maa ngi lay siyaar. bëgg naa la DJ Momo yaa ngi def leer. di la jaajëfal di jaajëfal chers amis fidèles téléspectateurs de Sunugal 24. bonjour à toutes et à tous ou bonsoir selon que vous soyez en Afrique en Europe en Asie partout à travers le monde ñu ngi leen di nuyu tey amaan mbégte bu baax. ak contentement bu mag a mag ànd ak yéen ci biir plateau bu mag bii di. sama talent di la bëggee moomu. ay ci mi ngi noonu saa su nekk rek ku nekk xam ne ne kooku la ñuy wooyee DJ Zala ngi ah, gën a xam ci Fou Guéri Toire Kelle la sama chroniqueur bi nga xamante ni saa su nekk waaye nag retour de plateau bi tey dañ ko ànd ak koo xamante ne nag ku ñëpp ràññeer ci àdduna ah, l' international Ngouda Beye ku ñëpp xam sénégalais Toire Kelle ki nga xamante ne nag jamono jii gaynde bi ñu jëlee coupe bi génne na benn clip bu am solo ah de clip boo xamante ne Toire Kelle coupe bi la ñu nam ah, daal koy génne dugal ko YouTube Toire Kelle mu def toile euh, Ngouda maa ngi lay siyaar waaw alaaji mu ñu ngi lay siyaare Sall ñu ngi lay siyaar yow itam di siyaar waa kër gi bu baax di siyaar Sénégalais yëpp di siyaar tam ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi nuy seetaan ak fu vidéo bi àgg ci àdduna bi rek ku ci ne ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la wax tam ñu ngi lay baal àq di la baal àq itam di siyaar ñëpp nag moom ayca mi ngi noonu fu dama lay bàyyi daal nuyu moom di ko jaajëfal bu baax a baax ñu gën ko xam ci Ngouda Beye wante avant loolu noonu dafa am lu am solo loo xam ni daanaka mën nañoo wax ni ay ati at dañ ko doon dañ ko dañ ko doon sàkku muy doog a ñëw mm-hmm. même bu dee une la sax foog ñu wax ci xam nga muy coupe d' coupe d' bi nga xam ni mm-hmm. ñoo ko jël macha allah Sénégal jël ko ñoo ñu ñu leen félicité gaynde yi nga xam ni tey jii nii ñoom ñoo demoon xaradi mm. te ci seen bakkan wane nañ bëgg-bëgg ak gëm-gëm bu ñu am ba ñëw indi ko fii ci biir réew yi ba gars yi am contentement gis ngeen ba gars yi ba ba ba lions yi ñëwee mm-hmm. gars yi mobilisation bu am biir Sénégal mosu fee am mag ndaw paa da gis koo xam ni ndeysaan day ànd ak doomam ñi ànd ak seen i sët dem maanaam amaan mbégte ak contentement bu mag moomu looy su nekk rek dafa doon loo xamante ne vraiment lu ñu yàggoon di xaar la. Mhm. ndax boo xoolee depuis des années des années ah yi Sénégal ñi ngi daw ci topp ci li nga xamante ne bu mooy coupe bi ah nekk ci compétition yi ah tey nag bu ñu demee doon championnat d'Afrique eh, loolu fier la suñu ndax amaana ne suñu maam yi wala suñu papa yi wala suñu suñu suñu suñu yenn ñi si kii nga xamante ne ñooñu jotoon mag bëggoon suñu âge nañ ko fekkee ah xamante ne xale yi am jom Ah, ah, ah, ay Bamba Dieng man nag Abou Diallo nag mënu ma ko bàyyi fenn ndax man mooy sama jour ah toirkale ñu leen di féliciter ñoom ñëpp gaynde yaa vraiment ñu leen di am jaajëfal baax a baax a baax mais nag tey eh, da ma indil ki nga xamante ne nag moom mooy Ngouda Ngouda bee ku nekk xam ne ne dafa woy Lions yi mm-hmm. te Ngouda nag nee na c'est l'international à part Youssou Ndour moo fi dàq woy am déet Ngouda waaw loolu kenn waxatu ko passé nañ ko euh, Youssou Ndour d'accord na ko gars yi d'accord nañ ko xanaa kay ëpp nu ay matériel rek moo fi nekk ak xaalis waaye bu dul loolu ñu leen mën foofu du seen moroom sax nag. Ngoudou da nga génne son da nga génne clip ci ci gaynde clip bu nu son bi nu tudd. ah son yi mooy jàppale lion yi gunge lion yi. maam jàppale lion yi gunge lion yi. jàppale leen gunge leen. loolu la son bi tudd. waaw loolu la son bi tudd soo demee YouTube da nga ko gis mi ngi fépp ku ko bëgg seetaan keroog min dóoree trois trois trois un. 3-1 yi. mas ban ban mas euh, génn. bi ñëwee de en bi ñëw la dama ko wàññi de 3 ndaxte euh, Cheikh Koyaate moo ma ngula xanaa doon waay. Mhm. léegi moom comme wax na ma loolu ca tam samay fans yi ne part waaw mhm. sama fans yi ne part dans le ma ngudda am na la yàlla may mhm. léegi dañoo bëgg nga way yi soo way lii coupe bi mën naa ñëw man naru ma woon a way ndax ndax jëloon na temps oo xam naru moo def loolu mhm. mais bu fan si ñëwee ak tam ku nekk naan way nu way nu tudd nu tudd nu boole nu ci boole nu ci mhm. ci laa dem studio nag def son bi ci benn fan ak seeg wu ma sax dama ak seeg ñu taal micro ci Papis Ndiaye bu waal yi def na bit ma ma way affaire affaire naa ñëpp dem jëlu moom sama temps sax pour bind ko woon na ma ko war a bindee mais teewul dafa marqué ñu bëri ah ak samay fan si bopp ñëpp marqué na leen ci tam hmm. nee naa woon bu gaa yi woyul ma woy coupe bi day ñëw ñu daan woy bu nu woy ñii màccituñu koy mel ko bu nu woy bàyyi leen gudde bi international mu woy parce que nga war a woy waaw dafa war a wàccee moromi international am lay way te dafa bokk ci réew mi su woyee coupe bi dina ñëw ndax am na lu yàlla def si moom Mhm. mais en tant que nguur buy international gale Sénégal yëpp dem dem seetaan li nga xamante ne mooy kan bi foofu ci Yaoundé te ñun gisuñu nga dem. waaw euh, xam nga tam am na ay liggéey yu bëri yoo xam ne mi ngi sama ginnaaw ak entreprise boo xam ne mi ngi sama ginnaaw. Mhm. su ma demee lépp day tëju. mais nag mën na maa taxaw gunge leen mën na maa taxaw jàppale mën na maa taxaw wax mën na maa taxaw ñaan. Mhm. mën na maa taxaw supporter. mais bu ñëpp demee bàyyi fi k gi kër gi day tëj. il faut am ñu dem feneen am ñu téye kër gi. ndax kër gi tam mooy Sénégal il faut ñu toog fii gunge tam ñi fi nekk ak ñu war a dépasse fii moo tax du dem woon quoi. dëgg waaw ñu bëri noonu ma xaar nag. Ah. mais bis dana ñëw ñu wàcc fépp bu soobee yàlla. xanaa kon coupe du monde bi lay doon coupe du monde xam naa ne foofu moom da ngay dem fi nga xamante ne Qatar. waaw coupe du monde bi soobee yàlla. Hmm, luñ bëgg la. bëgg nañ dem coupe du monde. bëgg nañ wër monde bi bëgg nañ dem coupe du monde. ndax àdduna kenn noo moom mu yàlla. képp ku jaamam yàlla nag boo amee gëmee sa bopp mën ngaa wàcc fu ni mën ngaa taxaw fu ni mën ngaa wax ak ñu ni ci kaw gëm sa bopp gëm bopp sa bopp ko moo tax tey coupe bi ñëw fii dëgg la loolu rek la <laughs> uh-huh. mu def clip loo xam ni daanaka mën nañoo wax ni képp koo xam ne artiste nga uh-huh. wëy nga fi uh-huh. taxul kii coupe bi ñëw Koura Beye l'artiste international borom daan su du borom jege njaay nga ñëw yow def son def clip gaa yi jël coupe bi est-ce que du yow yaa moo tax. waaw xam nga boo sëggee di jeex dara sëgg sëgg di jeex. Hmm. gisoo ko da nga war a siggi bàyyi gars yi sëgg xool ba xam ñoom ñoo la gën di bët wala moo xam. moo tax gaa yi sëgg ay année di sëgg di jeex ni fu ñu ñëwee fa lu ñu tudd ko. Hmm. dara ñëwul may man bu ma sëggee naa gis li ngeen di war yéen te bu ma sëgg yàlla dimbali na ma. Euh, suut bu ma génnee euh, clip bi. ci leen deux trois hmm. euh, bi mu dawee tuuti ci leen indi coupe bi. ba ci itam am na tam yeneen communication xam ne ma ko waxoon na leen ren bëgguma ñu naan euh, sóor bi tijaan la xaadir la ay laay yàlla bëgguma dégg loolu man nguude bi li bëgg a dégg mooy Sénégal Sénégal coupe bi ñëw bu ñu ko def coupe dee wàññeeku boo xoolee YouTube wala gramme da nga gis sama vidéo yi ma waxoon loolu avant coupe bi di ñëw may leen bu ngeen baase woo ci ñun ñu noon bennoo day ñëw mais bu ay parti parti parti bi nii parti benn ay sénégalais day néew doole. mais gis nañ Queen Biz wax na ci ba gars yi ñëwee mi ngi wax sax ci yenn artistes yi nga xam ne tey jii ñoo dem jege joueurs yeeg yooyu noonu te nee na ba muy métti dëgg moom la woon ba yéen mi ngi leen ci sax daanaka mën nañu wax ni ne da ngeen xaw a jege joueurs yi la loolu noonu. waaw Queen Biz ba mu wooyee man maa ci topp Queen Biz ba mu wooyee man maa ci topp mais nag xam Sénégal dafa am doon fi nekk ba loxo guddee wala nga am xaalis. man ngaa bañ a togg ba mu ñor gars yi woose la. xam nga moom fu ma bëgg a waxee wala xamoo ko. bu sa loxo guddee bu sa loxo guddee. mooy nga am branlon. wala nga am xaalis. bu la neex bul togg ca gaa yi bu ñu toggee ba mu ñor ñu woose la ñi doon togg di xaar ñoom. bari na fu mu secteur yi bari yooyu dem gis ña fa nekk mënu fa am dara ba waaye taxaw wax ñaari ba ñu jox ko fa dara. mi ngi am loolu nag fa am ci partout dans le monde rawat na Sénégal ak Afrique Afrique bi nga xam ne ku mel ne King Bis war nañ ko jàpp war nga ci boole. xam ndax war nga ci boole jigéen la jël weccetam mën na ko jëndee xeer ak i diw diwoo ko leeral defu ko mu dem jël xaalis ku ci studio ak ànd ak ay ay. ay wayekatam wala moom kese mu way pour sagal liñ sagal lion yi ci oto bu ñu koy puus su mu tàkkee ku ci teg sa loxo si puus bi nga bokk. Mm-hmm. kon nag oto bu tàkkee suñ gaa yi a ci la ma jàpp quoi te muy jigéen nag gëm boppam. mais mais mais mais ginnaaw bi nga xamante ni coupe bi ñëw na fii Sénégal ñu def benn concert ah jégle ko ki nga xamante mooy Lions yi Wally Seck lañ mm. ay clip fere ci mm. ba ci loolu sax posté na ah, di ci di ci ci wax ay ay yëf yéen yéen nan ngeen dundee loolu loolu nga xamante ni tey def def ko. waaw man moom li may faral di wax mooy. Mm-hmm. Euh, ki nga xam mooy ministre bi wala gouvernement bi ñaar ñu ñoo war a organiser. Mm-hmm. ministre bi wala gouvernement bi ci la mën a jàpp. mais man dama jàpp ne waa RSEC waaw te bu dee ba l'international ba pare jour yi la woy ba gars ñëwee teertu mhm. dafa tombeeg man ma man mbokk bu gaañu mhm. ma demen fa te gaañu itam dara du moom ndaxte nit boo amee moom mbokk mm. ba mu génn àdduna am benn bisam ba mu fi ba mu fi des ci àdduna mm-hmm. dafa laaj nga taxaw ko moo tax nag ma ñëwuma mais fu lion yi taxaw la ma fa war a taxaw ndax lion yi ñoo la gën a xam kan mooy Ngouda Beye gouvernement bi ñoo la gën a xam kan mooy Ngouda Beye Wally Seck moo la gën a xam kan mooy Ngouda Beye mm-hmm. ah mais nag ma bëgg gouvernement buy organisé itam mu def nday ju seex ku ne mu mm-hmm. nàmpal la ndax tey Wally Seck tey mën na jëriñ Sori mën na jëriñ Sénégal. Mhm. mais am na beneen booy. muy seen talent boo xam ne ëllëg si moom mooy jëriñ gars yi. Mhm. El moo doon na jëriñ ay jamono ay jamono. Mhm. léegi moo na jëriñ Sadio Mané. am na jamono yoo xam ne Bokaane moo fi nekkoon. étape la nag bu bu kenn xeeb kenn mën nga xeeb xaal nag mu lakk sa dàgga. dëgg la bu kenn xeeb kenn ku ne nu ko jox cir ba mu muy waale si kan ko jox cëram. booy ci topp nañ jox seen cër man ak keneen kenn nañ jox seen Sénégal kenn mënu koo seddoo Mm-hmm. mais nag bu sax bu sa xaalis bëree ko mm-hmm. gudd moom yow la ni woo yow la ni programme si wax la ni wax. loolu am na ci. Mm-hmm. Ah, am tam foo yaakaar dara da ci am. ndax Sénégal dafa am lu fi am mooy soo amee benn marché tey. koo ko jox. am loo ci séentu. kon nag ab xaalis la koy jox ak ak ab lu muy compal. yow soo am na loo xam amal Sénégal yow. marché bu mënoo ko gagné yow. ndax danaa amoo matériel wala amoo xaalis bi wala ñu xeeb la fekk koo xam ñëpp a koy dégg ci àdduna bi wala am na matériel bi ñu woo ko donte yaa ko ëpp xam-xam moom moom la ñuy woo ndax matériel bu fa ne wala tur wa. ca mhm. tur na du dara xam-xam mooy dara nag. dëgg la <laughs> waaw loolu la loolu la loolu wax naan borom doole yaa ngi dimbalante mais fu waaye ñëwal rek. waaw loolu la fi nekk. <laughs> Ah, aman mbégte bu baax dina fàttali que ni yéen a ngi ci biir émission bu mag yéen a ngi ci biir plateau bu mag bi di jaajëfal ki xam ne naan Eva borom Sicap Foire sama jigéen bu baax Eva doom day fàllu maa ngi koy jaajëfal bu baax borom Bambey ci biir loolu noonu fi nga daaneele foofu laa yëkkatee mm-hmm. est du fay bi nga fay moo bi au top mais ñu bëri ñu naan nguur bi dafa fay nguur bi kenn déggatu ko. xam nga mhm. Pape Diouf. yaa ngi koy dégg mu mhm. ngi doon mu ngi doon joué ci kaan bi di jàppale la yi. Mhm. teg ay concert. Sidy Diop yaa doon ko dégg mu def loolu. xam nga ñu fayu ñu lu tax woowuñu leen. affaire du fay ñàkk a fay. man dama yar briquet ak ak gaz moo neexee taal moo neexee fay or dafa war a am. taal am am fay. mais nangu nga ni fi doon da ngaa fay. su ma neexee maanaam fa fay ak tam am ay métiers yu bokkut ak yi dama am ay métiers ma dama xam ne asang na am naa entreprise su ma neexee duma ma ci li ngeen di nekk damay dem defi leneen di ci dépasse dunda sama bopp ak sama njaboot su ma neexee ñëwaat ci li ngeen ne melaat ci ni ngeen mel yéen léegi nag la tax man ma dem fee di sama entreprise gars yi jàpp na waaja fa fay te waaja xam-xam boobu ba léegi jógu fi soo xasee xam ne ni jullee ko saa ba neexee julli ah déedéet <laughs> yàlla waxul lool de. dama ni dama ni. <laughs> julli te waxtu bu la wax. nguur waaw dama ni. waaw soo xasee xam ne ne julli. waaw saa lu neex mën nga julli. saa lu neex mën nga julli waxtu wi nag waxtu wi julli nañ ko ndax en bi ñëw génn nañ wooy nañ def nañ kii def nañ suñu xaar ak suñu énergie pour ñu dégg ñu ñu duñu dégg. mais nguur est ce que musique hmm. ngi la koy delloo. xam nga euh, dafa am hmm. musique hmm. parce que li tax ma yaakaar ne musique delloo la ko du du benn soirée bu ma gis nga du di ko tëgg du disque d'or boo jël du du ay lenn loo mën a jaay loo xamante ni musique mën na la apporter dara dama yaakaar ne yow yaay apporter dara musique mooy ça veut dire que yow yaay jël sa weccet di def ci musique après nga toog croiser la bara non xam nga euh, am na connaissance bu am partout dans le monde. dëgg la. ca ca cam gën xaalis. dëgg la. te boo musique woon yow sa toog. dëgg la maa toog bi ñu toog nii ak say moroom musique moo ko indi man nga maa boolee keneen koo xam jox na ma xaar wala muy yee wala mu jàngal wala ma tey ma room man tiwaawoon na moom moo dëkk maa ngi ma xamante sama papa musique boobu am ko jox dëgg la moo tax tey ba ci gouvernement bi xam na ku tudd nguure bi am na Sénégal connaissance boobu moo tax tey jii Lions seen max bi ñëw coupe du monde euh, Afrique ñëw ñu ne Ngouroup bi bëgg moo wayal na. su ma waxoon du am. te man ma jël sama ñàkk def ko Sénégalais yi moo ma gënal man Sénégal yi jël ñàkk ma ko jox. te man bëgg naa Sénégal lépp lu ñu joxe rek man ma jël sama ñàkk def ci donte maa ngi bëggal ay doomu aadama ci sama xaalis. Mhm. tuyaa baa ngi feeñ foofu. tuyaa mu ngi fi ñu fi ni ñu ngi ci sept personnes Ngouroup bi numéro deux. Mhm, te am na fi soo ko ku mel ne Waly Seck wala Youssou Ndour wala Baaba Maal uh-huh. ñu am sept personnes yu dañuy toppandoo ay ay ay numéro deux àggul foofu uh-huh. te man dama ne tëggu ma soirée tëggu ma concert di dàqee gi ñuy tëgg uh-huh. kon su ma tëggal loolu laa yar laa xamee bi kay su ma yoroon <laughs> taxi musiba am. dëgg la loolu la nekk. <laughs> boobu ngi dañ am ba tey l' international du borom mu Ndiaga Ndiaye ah. <laughs> ante gis nañ. gars yi ñu ngi fi nekkal ñoom Paulis. Mm-hmm. ba ci ah Ouzin Keita. Mm-hmm. am na ci Paulis fan yee passé gis nañ ko biir Dubaay. mu leen ah daanaka muy muy classe gars yi moom moom. neen du xewi heure bu ko neex fi mu doon nii ba tey day tegu. Mm-hmm. nguru bi ñuy jég saay gis ko muy gëmm comme li mu wax léegi di gëmm. di tax waaw. ba pare yow ngi ni est gëmm boobu arrangé na la da ngay jég saay kenn dootul déggati ngóor a de. non dama ni dama am ñaari métier. Ouzin Paulus ba tey ñu ngi tegu ñoom. waaw man ñooñu sax seq ma ay wax concurrence ma ak ñooñu itam. parce que mooy bi ngeen def bokkul ñoom ay musique comédie musicale la ñuy def. seq nu ay wax bokkul conférence maanaam bu ko waali seq woo te ko seenam. Mhm. encouragé la. Mhm. ne la yaa dàq man sax yaa ma dàq way. gis naa ko foog moom. vidéo yi par moom ñu ngi koy gis. Mhm. baaw maal jël téléphone boppam. woo musiciens yi waali na ma nguro laa bëgg moom laa gëm li mu andi ci musique ki mus ko fi indi cootaam fexe ba xew partout dans le monde ba ma ba amaal def nii ba amaal n'importe qui lay woo di wax ak ñoom mm. Ali Mbaye Nder même chose mm-hmm. Pape ak Cheikh même chose Hmm? Assane Ndiaye ngéwél gi même chose bokkul ma gars yi fi ñoom dama am nag ñaari parti su ma neexee def ñoom Pawlish mbay li ñuy def mais su ma neexee ma ngi tëj loolu andi leneen alkaati bi am na droit siwilu am na droit sol tëne nga alkaati baa nga ne mais ko neexee siwilu doo romb doo comprendre mais boo nee lu ma ci neex utiliser su ma neexee romb leen nag ponkalu camion doon xam ne ngudu bee moom romb camion boobu léegi nag sa parti yi nga am ak doom bi la yàlla may nga mën a def lu ni wala ma romb la kaara ma taxi xam ma naa ko mhm. di xëy ba wàcc Dakar dem dikk def naa fa at su ma neexoon Dakar dem ko laay xëyee. dëgg la maa boog booy yi nga xam ne ñoom dañuy wax wax ne benn Sénégal jàngu ci franc. dëgg la ñooñu ñi may tëkkalee noonu ban wax la ma sa wax ci Sénégal bu nit mën a sa doo mën a jàng wala wala papa wala. waaw loolu fi waax loo xam ne. da nga naan damay lan leen wax ñoom. loo xam sa doom. mbaa sa mën na ci jàng daal. sa sët sa sët mbaa sa benn mbokk mën na ci jàng dara gisoo ko. waaw te stress la ñuy dindi. waaw stress nag man su ma neex dama koy dindi nit su ma neex dama dindi nit ndax man médecin laa. Hmm. am na ñoo xam ne leen opéré am ñoo xam ne piqûre la lu laaj. su ma neexee ma def la ma neex ma def la leneen. wala fu nekk. wala <laughs> ma neexal daal mais daal maa ngi doon gëm ne nguur bi c'est l'international te di nga ne dafa am xaalis clip bi def na ci 5 millions lu ëpp. clip am bii nii. tey la ko tey ko dugal studio génn ko studio tey clip ko tey. nguur am nga xaalis de nguur loolu mu demee noonu. waaw loolu mu demee mooy. ñun ba gaa yi jàng aar. danoo amal métier te mi aar ki wóorul. dëgg war a am métier ab bal ko sa aar. boo gisee koo gis moom muy def aar ci amul métier. wax lu yoonam nekkul sàcc ab ab ay daal. ak ñaan duggul loo war dugg. Mhm. da kay def mais fekk nga dina sa ñax kii mu laa jox ay bët fooy xool fooy xool soo gisee nguur mu am dignité. mosoo gis benn ay sowaare yu ñàkk fay ay càmbal nga ko fa ak ngénte nga ko gis. te dafa daan may woo. mais man dama li may li ma war a fay ma ko am lu may ñëw. ñëwuma te man woyu patron laay woy woyu boos. santir way sant dem su ma jaaxaan. dëgg la man woyu ma yooyu waayaanu ma de damay neex. maam sama xaalis am benn idée moo ko am woyal ko nit ñi. neexuma woyuma. <laughs> dëgg dëgg <laughs> kenn mënu ci ci war a am li booy am ci yi. am ko man na maa xëy am ko. wala ma soirée di mais nag dinaa organiser soirée teel ko sama. mais loolu koo xaar tey nga def benn soirée bu mag wala benn soirée dansante benn classique wala yooyu noonu invité ay boss wala ay patron gars yi ñëw dagg entrée nga toog du wéyal leen lu neex. waaw loolu ñu bari ñu ma koy proposé ndax fi ne nii may naa la groupe whatsapp yi nga xam ne ay fans Kalam Goulé bee la mi ngi ci 27 groupe whatsapp. 27 groupe whatsapp. waaw Instagram Facebook YouTube TikTok fépp am na Goulé Beye. Mhm. am na ñoo xam ba ci ay sëriñ. Mhm. muy laayeen muy faal. Mhm. muy mbàkke ba ca ñaseen. seeni sët. yëpp branché ak man nii te woowuma kenn ñoo ma woo bëgg ma. dëgg la ci li ma def ko su néew te man wàcce ci téere bi damaa taxaw sànni benn affaire gars yi yuuxoo su ma ne cëpp ci ne bàkku nag daan xam ne lépp dëgg la ngeemu. mais mën waaw yëngal seen bi ñëw yaa ma gën a xam. waaw loolu yàggatul ndax safoor yi. ñoo doon wax na Ngouda kañ nga ñu tëggal soirée muy safooru camion car rapide Njaga Njaay ak minibus tata ñëpp ak ba ci cag-cag Mhm. ñu wax waaw waxaat nañ ma loolu. ndax li tax ñu koy wax mooy Ngouda bi en même temps safoor la trapporteur la nekk safoor nekk entreprise ñoom ñu wax ko noonu mais am naa yeneen fans yu bëri nag. Mhm. yoo xam ne euh, duñ ay ay côté côté safoor. Mhm. toog naa sa bee safoor bu xam nga ko. ñu toog ay nit nekk ba màkkatal mu karama. di ma woo ñun moom Ngouda bi mos na gis ay fans yu nekk ba màkkatal mu karama di woo artiste. may man waaw may man am naa lool ndax Sénégal yi àgg nañ fépp ci fan àgg fépp ñooy seen portable téléphone ci poche fu neexee woo ko leen neex may woo ma ña mais Ngouda yow ñu gis boobee ba léegi yow nga doonub chauffeur mais dooloo goo njukkal chauffeur yi wooyu goo chauffeur ndax gis nañu fi Papa Thion euh, chauffeur bi booy dawal bul caaxaan ah, euh, bul di kersu te yow chauffeur nga en tant que chauffeur lu la mhm. tere dooloo njukkal sa mbokk chauffeur yi wala tali te chaque nga xam liy xew ci tali bi waaw xam nga dama def morte yu bëri mhm. mais morceau yëpp mënut a génnandoo mais safoo di am na am na morceau. am na morceau. safoo di am na morceau étudiant yi na morceau waakaw gi am na morceau euh, maaraay yi nga xam ne am na ci maaraay yoo xam ne dañuy jël seen taal bi lu leen jëriñu lu leen jëriñ cent franc am na morso mhm. beneen la fi nekk mais mënu ma ma xëy jël saako ceeb bi togg ko ci benn fan damay taw togg tuuti togg. <laughs> mais li fi nekk ci xam-xam. Uh-huh. kenn mënu koo lijjanti. Mhm. musiciens yi di way ak artistes ak ba ñun ñun suñu bopp di way. Mhm. am na morceau boo xam ne bii fan toll ñu ngi ci son ak émission te xamuñu suñu religion xamuñu suñu diin xamuñu suñu dara kon yéen teel teel la ko rek rek. yëpp a fi. xam-xam bi du fi jeex soo laajaan kii tëggal euh, Youssou Ndour muy euh, pa ki Jimi Mbaye. Mhm. daf naa ne kii lim xam gaa yi xamuñu ko. boo laajee ki tëggal waali moo ko may waxe làmbatu de mm-hmm. ki tëggal waali muy Papis Ndiaye danaan la kii géej la li muy wax ak li muy bind kenn du ko bind mm-hmm. mais ñun suñu temps moo bëriwul bu defal gaa yi loolu xam ne bëgg na gaa xam ne musique nelaw musique nelaw noonu defu na loolu ndax am beneen métier mais bu nu buñ amoon euh, temps wax nañ ko jox gars yi Sénégal six mois donc tëdd nelaw waayal leen mm-hmm. gars yi bàyyi way ndax gars yi si bëri xamuñu dëgg la xamuñu way mhm. neex baata afe am ñi ci mën a way bëriwul mhm. neex baat afe am mais ñi mën a bind xam àdduna bëriwul da ngay dem di wayaan ay way wala ñu bindal la nga mhm. ñëw naan un deux trois quatre cinq fekk un deux trois quatre cinq waa te waaw na ko moom ñoo la ko bindal sa baat aka fa nekk dëgg la mooy bi mooy sa baat afa ne say say tuñ melat suko waane waane ñu toñ na fi fekk li nga doon wax amoo xam-xam wax ko. géntu jàmm ngay nettali ma comme mu de presse. caaro yëmbal ma fa mbëkk nii naa mais jël benn xibaar. dëgg dëgg waaw dëgg dëgg. benn ko andi ci yow sa bureau andi woo benn xibaar. dëgg dafa yomb. dëgg la ay waajule xoolal ma lii rek oto bu nga ko mbëkkee dafa sëpp jëlañ te fekk oto mbëkkee demoo fa dikkoo dana la ko. <laughs> waaw man waa ji bëri ñoom loolu am si boo ko man de man damay am loxo lu ma la wax. Uh-huh. man maa ko xalaat sama yaram la nekk maa ngi ko dund gis ko wax dëgg la baasuuma ci kenn kuy bind amul benn way moom moo sax way nit naan ma waxal lii ak jëmal fii non A bi ak waaw ñun danoon lépp dafa ne si ñun mhm. te tam mhm. beneen mhm. duñ géwal duñ bala may sa jànguñu ko doonuñu ko duñ ñeeño mais nag yàlla moo ne woon gudde bi dafa war a bokk te ku yàlla woon na ngay bokk da ngay bokk dëgg dëgg bokk naa bu sundur xam ma bokk baamaal xam ma ah bokk ba waali xam na ba waali wala ak boppam uh-huh. dëgg fa ah, ah, Papa Thione am muy génn àdduna muy leen kii ni muy waaye bés bu naandee nga xam ne kii mën naa waaye ca xam li muy wax. Mm-hmm. Ah? am na beneen son boo xam ne moo ko moo ko ci kanamu Papa Thione. Mm-hmm, mu dégg ko. Mm-hmm. mooy boo xam waaye mu naan. xoolal kilifa gi li muy demoo. ca ñun askan wi ñoo ko ko def ñin. xoolal kilifa gi li muy sagoo. ca ñun askan yi ñoo ko wateel moom mi ñi fal la 2006 nga yor sa 406 dëkk Liberté 6 ñu ñëw nga nuy siisoo bu leen buddi ñu wax ak yéen ndax ñun fal waay boobu laa way si kanam mu xam ne kii bokkut ak ay sama waaye yaa nag far waaye li ngeen naa ko rajo ñun ñëwun si yooyu xam-xam lañu teg ci taabal ji waaw ñun foofu la ñu ne <laughs> ay jë mi ngi doon ay ah, ci saa su ma indil lu ne waaw ah, ku nekk xam ne ah, ku nekk ne ne li ñu jëgaloon ci waxtu daal day jeex mais foofu sama waaye nag xam nga dañoo nekk si mois de mbëggeel nag février ku nekk xam ne nag si 14 février ah lundi la mm-hmm. waroon nga woyal gars yi xam naa nag day jàmp ndax li liñ jël woyal leen benn clip defal leen ah, son xam nga mbëggeel gi waroon ngaa tas doo may benn son tuuti ci mbëggeel rek ah bu bu ko defee ñu daal ko tëj ci mbëggeel rek ku nekk xam ne ne euh, 14 février ñëw na ba pare nga bëgg ko bëgg ndaw si nab la nab la ba la bëgg raay yow mi waajur yi bañ na dun waajal ñu si metti na metti na man dama doon def buy jàng l'école ma jaar yoon wa mi jaar ngir gis ak moom bëgg gi ne sama xol yi ma bëgg a ray metti na metti na may leen xale yu ñu sëy ñoo gën ñi njaalo njaalo xale bi du xar ci du bëy mënoo koo yeew ba tax waayam fu ne fa jaar di wax ak moom mais leen xale ñu sëy moo gën njaalo njaalo yes mais yeneen xale yu sëy moo gën yenn yi ah. ndeysaan ayca mi ngi noonu saa su ne kontaan lay may li nga xamante ne nag moom la ñuy tëj émission bi. toir kàlla saa su ne ah vraiment kontaan nañu baax ah, ñëw gi nga ñëw suñu plateau yow heure boo ñëwee suñu plateau sama temps rek ku nekk xam ne day daal di yànji. Ah, waaw ah, ndax émission bi nga xamante ne toir kàlla c'est le meilleur du web comme ni ñu koy daal di waxee rek waaye kër gi tamit c'est le meilleur du web ah. Euh, lan ngay joxe lan ngay tàggatoo ak lan ngay joxe sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu gu ku nekk ci àdduna bi foo waaye mën a ne mhm. euh, lion yi jàngal nañ leen mooy gëm sa bopp mooy tax mbir mi mën a ñëw. ak tam yàgg ci seen baag mën a la faa fekk même boo dee sëy mhm. tam li ñu ngi lay jàngal. booy xëcc di xëcc rek bés dina ñëw mu baax. Mhm. booy liggéey tam ngay gone yor sa taaba taaba sa ñaar ko say juróom. Mhm. boo gëmee sa bopp rek mën naa ñëw ba lépp taxaw. ndax télé yeeg rajo yi fi nekk yëpp. kenn ku ci ne am na jamono xam benn micro mënoo ko am. gëm sa bopp moo indi loolu. ba ci itam ñii politique gëm sa bopp moo nekk ci ensemble. Mhm. wala ñuy nekk euh, fi nga xam ne mooy palais. dëgg la kon Sénégal yi gëmlaa seen bopp fonkaa Sénégal yi yërëm. xaaral gars yi joueurs loolu leen wax. waaw di wax Sadio Mané itam moom itam jàmbaar la. Mhm. Euh, ak équipe nationale bépp nag rawatina Aliou Cissé mi nga xam ne nag. Mhm. dégg na lu ni lu Aliou wasin na rek dégg na ko mais mu muñ ko. moo dem xolam bu yaatu na ndax bàyyiwul tiitul ragalul. Mhm. ba yàlla na ko yow kat bala ngaa dem ko ab jaam nga. ñaa mhm. dimbali jox ndam li loo xam mosu ko jox benn sénégalais yàlla jox ko mu jaara ci moom. te bu tiitoon baa mu ragal bàyyi na bu yàgg ndax dégg na fi lu ñuy nag. Mhm. munul munul munul munul mu te dañuy ba léegi. ba ba ñëpp xëccoo ci Afrique muy ay juróom fukki réew moom la ko yàlla jox. dëgg la su munu woon nag ah, da mën a am mais gars yi xamuñu ko mën ko mënoon ñoom danaan añ bi yàq ko léegi mu ñor ak mu ñor mbaa mu dem. Mm-hmm. dëgg la sans restaurant yooyu. Mm-hmm. gars yi du noonu da ngay jël sa temps. xaar yàlla xam ne jurit nga boo xëccee ñëwul nga xëccaat bis dana yàlla jàppale la. Mm-hmm. mais ñoo di ñëw la nga mel xeex yàlla naan ko man damay bàyyi. soo bàyyi mu bàyyi bopp yaa xam foo yem ah. dëgg la bu ñu kon boog yàlla bàyyi la sa bopp. <laughs> pour benn anecdote rek ba xam moom yaakaar ni coupe du monde bi dina fi ñëw wala. coupe du monde gars dañuy vaar de. waaw coupe du monde bi. mën na ñëw. mën na ñëw. waaw mën na ñëw. ñëw gi nag fi mu tegu mooy Euh, football bu jaar yoon. Euh, ñaan. Euh, gëm sa bopp. loolu mën na ko indi. bu fekkee tam nag ñi fi nekk nii defu na waroon def. ak ak tam li ko mën a indi day laaj entraîneur bi day laaj. coach yi day laaj ñiy fubal day laaj ñiy ñaan day laaj tam ñu support di laaj tam gouvernement financement bi mu leen di jox hmm. yooyu yëpp bu complété coupe bi mën na mën na ñëw mais bu ci sooxee rek mën na taxaw loolu am na solo oto buy daw rek hmm. benn panneau crevé hmm. day taxaw kon di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen di ñu ki nga xam ne moom lañu naan Gouroumbé di ko bëggee bu baax a baax fa lay wëree di jaajëfal ki nga xam ne moom lañu naan Sané Madio di ko félicité bu baax a baax moom ah di ko jaajëfal bu baax doom nday moomu di jaajëfal Fallou borom Bambey chéri Kumba doom ah, yi doomi Nogoy Mbodj ak Ibou mbay di ko jaajëfal bu baax a baax ah, doomu nday Astou Fall ku bëgg yaayam macha allah di leen bëgg bu baax a baax di jaajëfal Mansour Séri Serigne Aminta di la bëgg moomu. ayca mi ngi noonu saa su ne kontaan continuer mère maîtrisant ah, di la jaajëfal bu baax a baax yow Ngouda Beye. Ah, waaw saa su ne comme ni ñu koy daal di waxee rek. Ah, a toppoon émission bi nga moom a moom ah a baax nekkee foofu nga xamante nag mooy Ouest Foire ngeen seetu mhm. waaye nag maam fàllu borom TikTok bi Mame Fallou borom TikTok kenn du ko gaas ñu ngi koy jaay ah, l'international Mame Fallou borom TikTok waaye tamit di jox dig daje gars ah, ba beneen yoon incha allah mi noonu jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha